Euh, ñu jël ci ñaar rekk comme temps bi bariwul at <coughs> at euh, al aqlu salim Seydil Hadji Malick xel mi dafa ñawoon xel mi dafa ñawoon torop torop torop torop foo takkoon intelligence su maam Seydil Hadji Malick weesu na ko euh, waaye nag li xel mi di ñaw ñaw ñaw yépp xam-xam bee ko ko gën la والمصادق عقل السليم المصادق البر الشيخ الحاج محمد المنصور maam Seydi El Hadji Malick xelam ak jikkoom yu baax te rafet ci la convaincre képp ku mu convaincre nga fekk si ko ci naasir xaq bil xaq parce que am na koo xam ni daf daan tëgg sabar defoon ay rasta yu wàcc benn bis mu fekk Maolana Cheikh Al Hadji Malick di jàngale mu ñëw tiim maam alaaji Malick yor sabaram di tëgg waaye Maodo ci yar gi Maodo ci teggin gi Maodo ci dal gi ni pat continuer di jàngale loola metti mag ñi toogoon ak Seydi El Hadji Malick metti leen lool ndax toog ak ku mel ni Maodo mu yulli xam-xamam di la jox am ku ñëw taxaw di leen déranger loola neexul mag ñi jóg bëgg ko dóor Seydil Hadji Malick ni leen lan la lu xew ñu ni ko waaye góor gi ñun kat kii ñu ngi bëgg a déglu sa dars bi waaye moom mu mu ñu ko yàqal Maulana Cheikh Al Hadji Malick ni leen ku ma mën a waatal ba balaa tàkku tàkkusaan doo mel ni moom loolu du karaama de du baatin du lenn xam nga lan la mm. nite nit bala mu laa mën a yóbbu ci yàlla da lay sut cim njàng gën laa rafeti jikko dàq laa wax lu baax mën laa dimbali nga soog a nga soog a mën a ànd ak moom waa léegi bu fekkee da nga bëgg a dem ci yàlla te ki nga ànd daal tanewu leen kooku Cees sax du leen ko passé waaw waaye nag eh, Seydil Hadji Malick moom noonu la doon def di di di di jëfandiku ci jëfandiku yu sell yi moo tax papa yi euh, euh, Pape mu baax moomu toog ci ci ci saal bi ni ko mam mam Maodo si amoo moroom euh, xaw ma nu mu ko wayatee waaw waaye wayu wu wéree noonu kenn mësu koo gis ci ci àdduna wayu woo xam ni man damay wax ne moo tax ànd ak nit yàlla rek a wóor xoolal Baye Mbaye Donde di woy juru Pape Malick mi mhm. bu wolofalee ba toog nga xam ni e, kii mu àndal mbër la waaw <coughs> moo tax ànd ak nitu yàlla rek a wóor mhm. moo tax Baye Mbaye Donde ñu ngi koy ñaanal fa mu tëdd yàlla ko yàlla dolli yërmande ak ak njëgal ak mbooleem néewu néewu jullit ñu ni Mame Mansour mhm. sa wayjur Cheikh Al Hadj naka la meloon ci xalaat mu ne ah ñaar fukki at ak ñaar day nekk naa ko ak moom taxaliku kuma ak moom benn yoon maa bind ijaaza yi lépp lu daan def ci sama loxo lay jaar ñu ni ko waa léegi xam nañ ni yaa bind ijaaza yi xam nañ lépp lu daan def ci sa loxo lay jaar léegi bindal ñu gis mu ni musawwibu ra'yi fii tadbiirihi waaye nag xikamun wa laysa fi diinihi richun nii tafniidu maam alaaji Mansour nee na sama wayjur Cheikh Alxaaji Malik yeew woon na yeewute goo xam ne boo dee boroom xam-xam boo ñëwee du la woon ni xam na dara waaye yaram ak tegginam rek moo lay njëkk attiré yaram ak tegginam moo lay njëkk a mu ni nag waaye lim doon jàngale. xool xoolu ci kenn de yàlla rek moom lay xool. li mu war a wax. ci waxu yàlla. ak ci xadiis yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wa salaam. du ko raay raayal da koy teg ci digg bi ñëpp jariñoo ko. ñu ni ko waaw maam Mansour sa wéyjur Cheikh Al Hadj Malick ndax daan na daan na génn di dem. daan na génn di doxi soxla yooyu mu ne waaw waaw doomu aadama la comme ñëpp nit la comme ñëpp du yonent du <coughs> euh, la comme ñëpp waaye nag lam yaxtu xattu xuttan fi umrihi li hawan nee na sama baay alaaj bi ma ko xàmmee ba ni ma ko mujjee gisee ci biir ba ba biñ ko dencee ci biir suuf musumaa gis fu mu yëkkatee tànkam teg ko fu neexul yàlla musuma gis Maulana Cheikh Al Hadj Malick alayhi ridal Malick yëkkati tànkam teg ko foo xam ni neexul yàlla. wa kullu waqtin lahu fi nafsi te tajdidu. Seydil Hadj Malick ñi ko wëroon ñëpp. ku ci nekk euh, fexe na ba jaarale la ci yoon woo xam ni. mën nga fa jaar jëm ci yàlla. parce que wax na ni euh, laaj nañ ko ni ko maam Seydil Hadj Malick. mu wax ni mu laaj ay taalibeem ni leen su ma demoon ba bis ñëw <coughs> man leen li ma leen waxoon du lii lee la léegi naka ngeen ngeen di def taalibe yi kat ni ko maam euh, ni ko góor gi kon dey ñu ñaanal la yàlla xam ne wàcc nga yoon wi léegi ku mën ku mën a toll fii ci juboo ak sa borom ci sérénité ci dëggu ak ci bax ak ci yaatal kon koku nak deug deug du yalla du yonent waye nak bo ande ak moom doo juum euh, seydil xaaji malik nekkon euh, marabu bo xamni nima koy waxe moy marabu intellectuel la intellectuel nak ñepp jang ñepp ya ñepp yaakar nañ ni moy ñi jang ci ci école français yeeg yu demee noonu loolu ku ko teg foofu i tamit xëy na euh, da nga xamul looy wax intellectuel dëgg mooy fekk kuñ ni kële chef de bande la hmm. juba jubadi ba yegg ci lool hmm. ndox mi ñuy naan du ko naan sàngaraay ndoxam hmm. nangu jabaru jàmburay euh, euh, mooy métier ak ku mu ëpp doole rey la kooku nga fexe ba convaincre ko indi ko ci mbalaan bi muy naasiril xaq bi xaq di nodd suba ak ngoon guddeeg bëccëg kooku mooy intellectuel mm-hmm. noonu la ñuy ràññee intellectuel mais waaw noonu la ñuy ràññee intellectuel mm-hmm. waaye du gàddu saagak yore costume ak voiture de luxe ak yooyu kooku leneen la mm-hmm. parce que li tax mu mën réussir lolu mam Alpha Hima Yoro Wele ni moo moko tarbiya mom mam Alpha mam Cheikh Cheikh Al Hadj Omar Fouti yo ko tarbiya kon fi mu jaaree ci walu tarbiya motax mu mën réussir li kon ñu xamni مولانا شيخ الحاج مالك Hadj Malick dundam dafa waaye am keneen ku seedewaat ci ci ay njabootam koo xam ni bi muy ñëw ci moom dégg naa ci làmmiñu sëriñ Cheikh Tidiane si al yàlla na ko yàlla yërëm te te jéggal ko mu ni sëriñ Aline Gueye moo ni ma bi may ñëw ci sa maam Cheikh Al Hadj sama bàyyi ma daan jàngal waaye bu xëyee bindal ma balay ngoon ma fàtte ko mu indi ma ci Cheikh Alhaaj Malick radiallahu taala anhu wax nañ ni Cheikh Alhaaj Malick bàyyi na ko ci kër gi ay fan waxul lu jëm ci moom waaye nitu yàlla bu bu ko yàlla nangulee ëttam sax boo fa toogee di boroom xam-xam moo tax maam Mansuur ni ni woon maam Seydi Alxaaji Malik wa baadama ribta wajhu dëhri mumbasitun lanaa bi fay dëkk waaw ni ko nag wax dëgg yàlla mm-hmm. war nga ñu ginnaaw de mm-hmm. gas nañu am kan amu xóot ñu denc la ci noonee ñu def sa soppe ba naa muhammad waaye nag wa baadama ribta mm-hmm. wajuhu dëhri mun basitun ni ko nag ba ñu wanee ginnaaw ba léegi lu daan jóge ci yàlla di ñëw fii mësta taxaw njaboot gi nga fi bàyyi woon kenn mus cee jàdd waa léegi defar ay nit ba xëy wan leen gannaaw kenn jàddul kenn dëggul kenn jubadiwul lii nag wajuhu dëhëri yow bàyyi mun basitul waaye loolu yépp nag lanaa bi fay dikka sa bëbb ak nangu gu la yàlla nangul yow alaaji Maalik ci lañu amee loolu damay wax toujours ni ku ne mën na seede ci baay mu neex mu safee mhm. waaye sa doom bila la bu la seedeelee doy na sant yàlla euh, loolu yàlla dimbali ci Maolana Cheikh Al Hadj Malick ba defal ko ko kii nag di Serigne Aline Gueye mhm. ñëw ci moom maam Maodo bàyyi ko ci kër gi di dem di ñëw di dugg di génn di jàngale di jox nit ñi ñuy tudd di di di takk sëy di tudd doom yi di def mm-hmm. ba bés wax nañ ni maam Safiyetu Ñang rahmatullahi alayha moo ni ko waaw góor gi mm-hmm. doomu jàmbur ji nag doo ci wax mu ngi fii fii bëgg a yàgg de wax nañ ni fekk na maam Seydil Hadji Malick di bëgg a dem julli ji tisbaar mm-hmm. parce que Seydil Hadji du dem gépp musta tardé waxtu julli maam Maodo ni su ma jógee ca jullikaay ba nañ ma ko andil biñ ko indee Seydi El Hadji Malick jël loxoom yu tedd yooya teg ko ci bopp bi jël lépp luy xam-xam def ca ñu ni Seydi Aliou Gueye waxal mu ni hada anfusan dallat ani rushdi fahtadat fa saamat wa qaamat laylaha bi tahajjudi mu ni hada gindina anfusan waxul suñu bakkan yi parce que bakkan yi fi mu placé wu ku ko fi dindi rey ñu waaye ñan la gindi jaaykatu doole yi nangukatu jabaru jàmbur yi mm-hmm. joué katu carte defkatu yu bon yi mm-hmm. Seydi Hadji Malick hada gindi na anfusan ballat yoo xam ne sànk woon nañ mm-hmm. waaye mu gindi leen jëmale ci lan ani rushdi jëmaleen ci bëgg yàlla ak bëgg yonent yàlla Muhammad waaye nag watatu si ci tariqa Mawlana Ahmad Tijaani <coughs> ñu ni ko bim leen ginde ba nopi nan lañu def fahtadat ñu ñu ko nang ko top amay wax chaque jour mané seydil hadji malik ken top ko ndax xam-xam ah. dedet parce que rew mi bari na ay borom xam-xam <coughs> rew mi bari na fi ñu bu baax lool di borom xam-xam waye nak seydil hadji malik xam nga lu ko nit ñi lu ko nit ñi topé mu di wacc ci suuf mm-hmm. tek yalla ci kaw fa anta ilahi mm-hmm. ya mujibu liman daha daawtuka nak ya sattaru fastur maibati ku ne xamna ni ne malik amul ayib mm-hmm. waye fastur maibati bu ne fastur ya euh, nëbbal ma samay ayib ñun njabot gi lay wax nañu jema jaar fi mu jaar ñun njabot gi la bëgg baaxé pour ñu jaar fi ñu wara jaar waye molana haj malik amul amul benn ayib. ñu ni ko waaw ñun xam nañ yàlla. xam nañ yonent yàlla Muhammad ba ku ne xàmmee nañ la waaye ki nga ñuy wax naan mooy borom tariqa bi kan la Maodo bëgg expliquer sëñ Babacar Si ni ko papa xaaral muridul xarmi cheikhi laa yudaamu yanaalu bihi bi gaayatu maa yuraamu fa baydatuhu tubaaxu axi bi alfin fa maa lil farqi fii bayain kalaamu ida kaana al karimu yajuudu fadlan fa kayfa yuqaasu lil fadlil maqaamu moo tax li ma la waxoon sànq yow ngay wéyjur di wax neex na waaye say doom di di seede ko dàq sëñ Aliou Guèye nee na bi Seydi El Hadji Malick paree ci ñoom fa saamat ñuy woor nag waaye ñu ni man mi nga xam ne koor rek la rek lay wor man mom, weeru koor dong lay wor amul benen bis bo xam la ko woor parce que suma woré damay son seydil xaaji malik alayhi ridal malik ñi mu yar daan nañu wor waaye duñu wor ngir ni wor nañu waaye wor ngir gëna ray sen bakkan dundal ko ci li bëgg wax nañ ni sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amin yàlla na ko yàlla dolli yërmande ci mm-hmm. ci nettali mm-hmm. wax nañ ni dafa toog di naan jus mm-hmm. sëñalin gay romb ko mu ni ko papa kaay naan sëñaalin gay ni ko ah doom man day xaw ma lii mu ne ko ah papa lii lu ñuy naan la rek mu ni ko sa maam rey na suñu bakkan yëpp ba yëg-yëgu àdduna ah, amatuñu ko waaw sa maam. Mm-hmm. Alaaji Malick. Mm-hmm. rey na sunu bakkan yëpp ba yëg yëg amatuñu ko. waaw. ani rushdi nag fahdadat fasaamat waqaamat léegi ñu taxaw ci waqaamat boobu mooy lan mm-hmm. Habib waqaamat boobu alaaji Malick moo ko njëkkee chaque guddi mm. baqara ba ba Mariam ñu salaatoo Mariam Banaasi Pa Malick Mbaye mii daf koy way wayu neex euh, yàlla na yàlla dolli wéral seen baat yi mook saam yàlla na yàlla wéral seen baat yi bu baax a baax a baax a baax baax a baax ndax ay sac lañu ay élément clé lañu ci xadara Seydil Hadji Malick waaw man euh, maa ngi leen di ñaanal mm-hmm. ñuy ñu yegg fu kawe kawe kawe waaye nag waxaamat mm-hmm. Maodo ba mu ca jógee ku mu am rek daan nga jëfandikoo alquran guddi balaa ngay teg sa bopp ci kaw lal di di taxaw di naafi la di bakk yàlla kooku Seydil Hadji def na ko ci ñoom kenn par kenn léegi nag bu ñu jógee ci tarbiya bi <coughs> fi ñuy daanale ndax mu ngi guddi fi ñuy daanale ñëw ci université bi université bi ñan la ak nu mu demee wa waafaqahu axuuhu muhammadu alhaadi radiallahu anhu xaytu qaala fi nafsi alxaal mu ni mudarrisan kulla ilmin kaana mundarisan bayna almadaarisi bi daanan wa sudaana سيد الحاج مالك والمشكلات isa azat maaqiduha Mamour Sow nee na masala yi lu lu mu tar tar tar ba kenn mënu koo tekki boo ko indee ci Maodo fekk masala yi ñuy doxantu ci biir këram fekk masala yi ya nga doon laajte sonn ci ñuy doxantu ci biir këram wax nañ ni moom la waxoon maam maam Thierno Seydou Nourou maam Thierno Seydou Nooru dintu yàlla bu mag. mat sëkk fees dell bi muy ñëw ci El Hadj waaye wax nañ ni Seydil Hadj Malick daf ni ko Thierno. Hmm. boo bëggee yegg ci yàlla li nga yore yëpp teg ko ci suuf bàyyi ko fi ñu ànd yoo ci yàlla. Hmm. parce que maam Cheikh Al euh, maam Thierno Seydou Nooru ni meloon ci baatin jéggi na dayoo. Hmm. ko Thierno boo bëggee yegg ci yàlla tegal lépp ci suuf. siñaari nee na Seydil Xaaji Malick waxuma sax moom mu jàngal la waaye ëttam bi rek boo fi ñëwee da ngay jàng waxuma la non seulement dinga jàng waaye boo bëggee ëtt bi jàngal la boo bëggul ëtt bi jàngal la parce que lu tax saa boo xëyee fekk fi ñuy jàng mm-hmm. te nag boo dëkkee ci kër lànk ni doo jàng xanaa loo ñàkk-ñàkk-ñàkk-ñàkk jom boo yeewoo gis ñuy jàng boo añee gis ñuy jàng boo reeree gis ñuy jàng xam nag waaye nag sëñal euh, maam Hadi nee na mbooleem xeeti xam-xam yi euh, Seydil Hadji Malick peeg na ko ba jàngale euh, axlaaqul xamida yi nag ay jikko yi yi nga xam ne sant nañ leen Seydi El Hadji ku respecté woon mbokkam yi fi yi mu fi nekkaloon la moo moo tax ñun nañu respecté sunu maamu Serigne Touba nañ ko gën a bàyyi xel ci góor yàlla yi de ci góor yàlla yi la de nañ ko gën a bàyyi xel jox euh, fi ñu euh, euh, bët bi ñu am ci Maodo donte am nañ ko ci maam boroom Touba. Mhm. waaye na gën a yokk na na gën a yokk mhm. nii ñuy ñaa ñaanale Seydil Hadji Malick mhm. nañ koy ñaanale noonu cofeel bi ñu am ci Maam Maodo nañ ko gën a nàmmaat gën ko am ci borom Touba gën ko am ci maam Cheikh al Islam Baye Niass di suñu soppe di suñu lépp euh, ñu am ko aussi ci mag ñu baax ñu fi nekk ñëpp ñu fi nekk ñëpp ndax ñoom la yàlla rus mm-hmm. ñoom la yàlla rus mm-hmm. ba écrasé wu réew mi parce que waxante yu ñaaw yi ci réew mi mm-hmm. ak xawwente sutura bi ci réew mi bu réew mi takkul rek ñoom la yàlla rus kon loolu maa ngi koy ñaan mbokk yëpp nañ ci dellu gën a joxaat xorma kilifa yi gën leen a bàyyi xel gën leen a sopp gën leen a bëgg gën leen a safoo loolu maa ngi ciy woo ñëpp di di di ci jiital sama bopp euh, fi ñuy daanalee ci baytu Serigne Aline Gueye la ñuy dellu si <laughs> moo di isa naxnu ji naa naxwahu min taallumin wajadnaahu sahlan layinan lam yushaddidi mm-hmm. mu ni ñun ñëpp man ak samay moroom bi ñu ñëwee di jàng si xam-xam ak di wut si yàlla ak di wut si xam yonent bi bi ñu ñëwee ci Seydil Hadji Malick fekk nañ ko mu gën ñoo yaru fekk nañ ko mu gën ñoo dal fekk nañ ko mu gën ñoo teey fekk nañ ko mu gën ñoo ragal boromam ndax Mame Mansour nee na Cheikh Al Hadji Malick musul tàllal tànkam ñu ni ko ndax ci ci ci buy jàngale rek la layam mu ni déedéet même bu nekkee ci néegam daawul talal tànkam ñu ni ko lu waral loolu si mu ni ngir ragal yàlla waaw léegi ku yegg fii mm-hmm. ñun bu ñu ko yàlla joxee waaye waaye nañu xam suñu bopp nañu xam suñu bopp mm-hmm. euh, dégg naa ci benn kat mm-hmm. di borom xam-xam di ko yiw di ku bax mu di ganna mesere ben, mm-hmm. mu wax wax bu relu mais wax bu am solo mu ni bu nit nan kani gaa kani gangi kani ngi te yow sukara la intéressé mm-hmm. jëlal suukar seen <laughs> tani pat te bayyi ki bëgg ak kaani mu jël kani mm-hmm. loolu wax bu relu la mais mais mais deug la manam ñun euh, nañu gëna bayyi xel sunu kilifa yi. Mm-hmm. mais nit mënoo ne ci réew mi wala nga ne fenn. Mm-hmm. ba noppi am loo gëm. Mm-hmm. ba pare di ko doyadal. bu ñu doyadal sunu kilifa yi. nañu séddoo alaaji Malick waaye nañu respecté sunu mag yu baax yi. nañu respecté sunu mag yu baax yi c'est très important. nañu gën a respecté maam Cheikh Ahmadou Bamba. nañ ko gën a respecté gën ko fonk gën koo bàyyi xel. ndikki noonu maam Baye Niass ah ak euh, maam Limaamu Laay ñëpp rek ñu respecté leen xoolee leen cër bi leen yàlla defal <coughs> ndax ñoom ñoom ñoom ba ñu sonn di jaamu yàlla ñun kenn ganeeku ci àdduna ah? euh, loolu nañ ci bàyyi xel te aussi euh, Sëñ Aline Gueye nee na bi ñu ñëwee ci Alaaji Malick fekk na dañ ko muy nit bu responsable bu weesoo njàngale meeg eh, ya ca aju Seydi El Hadji Malick ku responsable la lu ko war ci njabootam rek def na ko lu ko war ci taxawu njabootam rek maam Seydi El Hadji Malick matal na ko eh, bu ñu ko yàlla séddee dañu gën a xam suñu bopp gën a respecter suñu bopp gën ko teg palaasam waaye nag encore une fois fonk ñëpp bëgg ñëpp te yàlla rek tax xoolee ñëpp te yàlla rek tax ndax àdduna loo xool ci lu ñaaw ci sa moroom ba gis ko téeméer a ngi ci yow loo xas a génne ci sa làmmiñ mu ñaaw boo gëstoo sa bopp xam ni téeméer a ngi ci yow léegi tee ngaa régler li nga ñaawle régler li nga bonle mm-hmm. te ñaanal keneen yàlla dimbali ko bu ñu doon def noonu toujours ma ma wax ko mm-hmm. mani ni euh, yi ñuy xam ci nit ñi di ko wax te baaxul ah. dañ ko war a retourner ci suñu bopp seppi li baaxul ci suñu bopp te jéem a ñaanal nit ki yàlla delloosi ko parce que léeg nit mën na nekk ci bon. Mhm. te du te du du moom. ñàkk ku ko teg ci yoon a tax. looloo tax ñuy wut sëriñ. Mhm. kon ñu su sant yàlla bu baax. Mhm. li ñu bindoon bari na. bëggoon nañ ko yaatal ba mu gën a yaatu. waaye dañu xam ni temps amul. te yéen a ngi jëm ci ci xadaratul jumaa mu di lu màgg. ci tariqa bi. di lu màgg lool euh, ci ci ci képp koo xam ni aju nga ci tarixa bi mm-hmm. muy lu màgg ci yow mm-hmm. euh, ñuy ñaan yàlla mm-hmm. lépp lu ngeen ci ñaan yàlla yàlla nangu lépp lu ngeen ci bëgg seen diggante ak seen boroom yàlla yàlla nangu bu guddi euh, bu gàmmu gaa nag ngeen am sunu patron sunu sëriñ sunu mag sunu soppe sunu xarit bi sunu lépp mm. Seyid Mahamadul Habib si euh, boo ko xoolee rek daal di gis papaam ci xam-xam bi mm-hmm. ci yar bi mm-hmm. ci teggin gi mm-hmm. ci bëgg nit ci bëgg nit moom Serigne Habib yàlla ko yàlla sàmm yàlla dolli ko aar dolli ko wattu dolli ko kattanal ba mm, fam daan jaar mu jaarati fa mbir yi gën a dox te gën a baax euh, foofu ngeen nekk lu mu neex neex neex neex bu leen fàtte ni doomu réew mi ngeen réew maa ngi leen di xaar réew maa ngi leen di ubbil ay loxoom <coughs> pour ngeen ñëw ndax dëkku fa te nit fu mu dëkkul dafay defar te te jóge fa mhm. la ngeen fa bëgg yàlla yàlla leen ko suñu boroom jox mais ku ko ci yàlla jox itam mm-hmm. bala nga koy joxe kenn ci biti mm-hmm. na ko jox say wéyjur na nga jox sa addiya sa ay wéyjur mm-hmm. ndax wéyjur la mën a ñaanal mu tàkk wéyjur a mën a mer ci yow lépp yàqu nañuy jël suñuy suñuy teraanga ak suñuy ñaan di ko ñaanal suñuy wéyjur ñi fi seen wéyjur nekk yàlla nañ fi yàgg seen wéyjur nekkul itam yàlla leen yàlla yërëm te jéggal leen ci barke yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ni bitim réew xat na temps amu fa waaye lu mu xat xat xat xat nañu fonk julli nañu fonk julli fonk julli nañu fonk julli sëriñ boo mën a àndal ak sëriñ bu mu mën a doon bu lay liggéeyloo ba waxtu julli jot bàyyi fa sëñ baak liggéey ba yépp te dem julli ci bàyyi fa sëriñ ba laani mhm. ak liggéey ba te dem julli ji parce que yàlla du sëriñ sëriñ du yàlla mhm. te sa te sa sa sëriñ euh, euh, cofeel boo mën a am ci moom mhm. bis buñ la dencee ci biir bàmmeel xamul lay xew yàlla rek a xam liy xew bu la wóoree ni di nga daje koo xam ne du def li la neex li ko neex lay def xamul li nga bëgg li bëgg la xam da ngay xam sa bopp te jéem a la sa bopp balaa nga fay dem ñuy ñaan nag yal na yàlla jéggal ñu suñuy bakkaar te musal ñu ci seytaane ak ak lépp luy lore ak lépp luy yàq luy tax ba du ñu mën a def suñu farata <coughs> suñu diggante ak suñu borom yàlla nañ ci yàlla musal euh, encore une fois euh, Serigne Babacar Sy Mansour yàlla sàmmal ñu ko yàlla aaral ñu ko yàlla wattul ñu ko yàlla dëgëralal ñu ko yàlla musal ko ci cat ak bët ak seytaane ak yàqkat ak luy lore yal na yàlla musal Serigne Babacar Sy Mansour niki noonu rakkam Serigne Maodo mm-hmm. kazalik mm-hmm. yàlla sàmm ko mm-hmm. yàlla aar ko yàlla wattu ko dëgëral ko Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ak euh, euh, Serigne Mansour Abdoul Aziz yàlla na leen yàlla na leen yàlla sàmm ak mbooleem njabootu Seydil Hadji Malick ak képp kuy dégg sunu kàddu gi hada wa billahi tawfiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، ما شاء الله ربي شاء محمد الحافظ آه، kontaan nañu lool ci échange yàlla dimbali نجوم